njàngat yi ni leen di defal ci ñi xam ne ñooy kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci biir réew mi wala ay star tey lañ euh, euh, wax ci loolu bala ñu commencé ci moom ci carrière goo xam ne euh, na ko fukki fan ak juróom ci weeru juillet 1974 ca Thiès nga xam ne ay parents yoo xam ne parents yu nekk ay fonctionnaire la ñu nekkoon waaye Casamance la fooye Casamance la defee xaleem jàng fa ba nga xam ne yëkkeeku na fa la nga xam ne mooy université Gaston Berger ba nga xam ne moo nekk ca Ndar ba mu fa demee ah, jàng fa ba am fa ah, la ñu naan droit ba mu den maîtriser 1999 la tege ci loxoom fa la trophée commencé ah, mbir ma mel ni tulleeg man li ba mu ca jógee nag ca la nekk doon def li nga xam ne na ENA ENA boobu nga xam bi nga xam ne moom la doon def ci administration publique sénégalaise nga xam ni première poste bi nga xam ni moom la njëkk am ci wàllu impôt ah, ma nga ko amee fële nga xam ni ah, moo nekk ah, Dakar ci Pikine bi nga xam ni fa la première poste nekkoon Pikine la njëkk a liggéey ci wàllu impôt 2003 mu am li nga xam ne mooy diplôme am ba nga xam ni mooy diplôme boo xam ne jëm na ci wàllu fisc boo xam ne euh, bu normal la ak ma ngi ko amee ca université ba nga xam ne mooy euh, Cheikh Anta Diop amaale masque euh, masque master ba nga xam ne day mën a sectionné lu jëm ci wàllu finance ak institut intérieur yi nga xam ne am na ko également yooyu yëpp nga xam ne yëkki na ko ba mu ci jógee ca la dem ca réewum France ca Moulin daa dafay yokkaatum njàngaat ba dolli ca yeneen diplôme yoo xam ne daanaka pour bañ a guddal vidéo bi yooyu yëpp yëkki woon na ko nga xam ne bi leen ko directeur